waaye loo la wax ci paa bi demoon <laughs> daa jiw miir daa laal buntu bi rek foog jël ko tëj te kenn tëju ko ubbi xaaj ci buntu bi rek kenn gi topp paa siif miir ki siif ba ci àllu parkaat bi gis benn branche rek daal ci langaam yéeg ci branche bi kenn gi puus foofu ba foofu baax rek mu toog foog di xaar paa bi paa bi ba abdominaux yi bàyyi yow yii <laughs> maa eh, ngi siggi daal di xool gaynde gi ba gaynde gi siggi xool ku am yàlla jox la bàyyi <laughs> ah, facebook di ma ko suivre snap ak instagram bu ngeen abonné ci chaîne bi comme ba tey chaîne ba fees na <laughs> wala da ngeen bëgg ci def porte à porte waa da ngeen bëgg ñu jàpp seen loxo di abonné la abonné leen waaye non waaye gars <laughs> abonné nga laal cloche bi lu ñëw nga yëg ko li neexu waa démarrer. Stand up, profitez de ces instants inoubliables. Tenez-vous prêts, ça va aller vite et à une vitesse extraordinaire. 5, 4, 3, attention, 2, 1, abat